tay besu mbecte la besu waxtan man mi fi ñew nek directeur général agence développement local agence développement local buñ ko waxee kurel la bo xamanteni dafa wara jog jóg dugg ci gox-goxaat yi xol jafé jafé nit ñi lam ca man mu génnee pexé lam ca mënul mu sét pexé ba fam mu mu orienter fa nit ñi man lool moy sama liggéey ñew buñ fi ñew tay nak indi fi boulangerie mobile boulangerie mobile nous avons fait un ak jiwu Nous un dara, une boulangerie mobile un champ du savoir toolu xam-xam lan moo waral loolu jafe-jafe yi dafa bëri maire bi régler waaye kon ñun maire yi askan bi buñ jooyee si ñun la ñuy ñëw mais ñun war nañ trouver ay pexe moo tax ñun pexe yi ñu bëgg mooy maire yi neen joxante loxo ñu ko tuddee coopération territoriale ñun ko tuddee intercom ci wàllu boulangerie bi ban solution lay indi boulangerie bi bu ngeen ko amee mën nga di jaay di lakk di jaay nu mu la neexee ingénieur bi wax na la né ñaari waxtu mën nga ci am 300 miches de pain tol bañ la jox nga koy bay muy tolu mbokk mbokk farine la farine bobu nang ko yobbu ci bir four ba ñu bolé ko ci mburum alors ñun buñu ñëwé wax ne légui dañu bëgg fi ci Saloum maire yi fi nek ñu ak ñom loxo ñu taxawal ben pacte de résilience rurale mu niru initiative communautaire pour bâtir un bouclier céréalier du Saloum. Parce que Saloum, mon un sac au Sénégal. Est-ce que vous savez 754 000 tonnes de blé. Mon le Sénégal du sol, et je suis venu à la 754 000 tonnes de blé. Il y a 149 milliards. Yo xamni xaliss buy guéné suñu gafaka la dem di jënd blé, balé balé bo xamni ñun bayu joko bale lan la sunguf la suuna mën na nekk sunguf bësi mën nga ci génne sunguf mboq mën nga ci génne sunguf mais lan moo ñu poussé ñun ñu valoriser ces ressources locales di ko def ci li ñuy lekk di ko bay di bay di dund li ñuy bay moom la ñuy dundee li ñuy dundee moom la ñuy bay agent développement local foofu lay woo nit ñi fi mu woo nit ñi mooy la ma soxla pour yokk ca kanam mën naa koo jéggaani de waaye la ma war man naa ko def